asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki ginnaaw bi sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi bàkk ak yàlla di ko santaat di ko gërëmaat ci xéewal yi nga xamante ne nii moom lay dotti bis bu jot guddeeg bëccëg subaa ngoon ci suñu kaw waaye tamit kazalika du ko dotti ci jullit ñépp waaye ci nit ñépp képp kuy dox ci kaw suuf rek yàlla subhanahu wa taala mu ngi lay xéewale xéewal goo xamante ne nga yëg ko ak nga ñàkk ko yëg lépp ci moom subhaanahu wa taala la bàyyi ko mbokk yi waxoon naa leen bii paase ñu ngi ci suuratu naxli waaye tamit kazalika li ci ëppoon solo newoon naa leen teg leen seen baaraam ci mbir moo xamante ne nii yàlla def ciy dugg ak ñun muy loo xamante ni nii moo fi nekkoon démb nekk fi tey te moo fi nekk ëllëg niti nguur yi ñu déglu bu baax képp kuy xeex islaam mu déglu bu baax yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni wallahu yaalamu ma tusirruuna wa ma tulinuun walladina yadcuuna min dunihi laa yaxluquuna cheyan wa hum yuxlaquun amwaatun gayru axyaa wa ma yashcuruuna ayaana yubcathuun ilaahukum ilaahu waaxid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون موكي إن شاء الله تبارك وتعالى تي آية لي تفسير يلا سبحانه وتعالى دفع وحني والله يعلم ما تسرون وما تعلنون يني خ إسلام يني خ خمنتني يني خ دينج يني خ خمنتني يني تك أي بخي دخ أي نت di fexeel ay nit di leen teg fitna na ngeen xam ni yàlla li ngeen di def lépp xam na ko moo xam dafa fés moo xam dafa nëbbu même yéen état yéen ñi làqatu nga xamante ne ni yéen kese xam luy dox ci réew mi te li ngeen di nas du njariñu réew mi yàlla nee na xam naa ko yéen ñi toog di xeex islaam nan noo Sénégal il faut ñu xeex il faut ñu gën a dooleel góor jigéen ñi il faut ñu may leen doole ba ñu tas yéen a ngi may dégg yàlla subhanahu wa taala nee na la ngeen di ràbb yàlla nee na xam na ko wallahu yaalamu ma tusirruuna wa ma tulinuun muy benn waaye tamit kadalika soo ko jëlee delloo ko ginnaaw tuuti dem ca yéefari makka ci xërëm ya ñu daan jaamu yàlla subhanahu wa taala wax ni wallahu yaalamu ma tusiru wallahu yaalamu ma tusirruuna wa ma tulinuun walladina yad'uuna min dunihi laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun yàlla nee na gaa yi nga xamante ni dañuy jaamu kaneen ku dul yàlla gaa yi nga xamante ne dañuy jaamu kaneen ku yàlla nañ xam ni ñooñee ñuy jaamu ñoom binduñu dara au contraire dañ leen a bind au contraire dañ leen a bind kon yow miy danti danti ci àdduna di rey sa bopp ci mbir moo xamante ni dañ koo bind ba fatte yalla subhanahu wa taala di nga perte waye yefer bi nga xamanteni ni dafa yett aw xërëmam diko jaamu xana xamul ni xërëm gi muy jaamu lañ ko bind kon jappal xërëmi makkay ak doomu adama lepp lu muy jaamu ba mu tere ko jaamu yalla ñetti mbir yi ñu ngi ci bi ci njëkk lolé nga top diko jaamu dañ ko bind motax yalla subhanahu wa taala wax ni walladina yad'una min dunihi laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun muy benn ba pare li ci gën a yéeme am waatul xayru axyaa mbir yooyu dañoo dee dunduñu dañoo dee dunduñu te ak dundit du leen dab déglul bu baax alxuraan sew sew bi ci nekk xam nga yàlla bu ne am waatun dañoo dee ba pare daan ne xayru axyaa dunduñu mën nga ni waa mais dañ ku deewul kay dundoo yaay deg dégg ku dee kay dundo kon yalla lan motax tax mu naan am watul daño dee ba pare mu ni khairu ahya dunduñu aha dafa am mbir yo xamanteni ni man mën tollu ben étape boo xamante ni dundu dund jamono di dox di dox di dox bañu dund exemple li nga xamanteni ni mom modi tokantalu di yu masalan amna fu mu tollu dundut waye muy avancer di développer ba am fu mu egg yalla def ci ak dundu duguma nak ci kawu ndox ma si jëmmi bopam fekk nañ ci yu waré ni ndox mii mu ngi dundu dedet mais dundu gi may wax moy dundu doomu adama kon mbir mi daawul dund démb tey mu ngi dundu waye xeer yi nga xamanteni ni wa makka ñu ngi ko doon jaamu anañu dundu ñu won te duñu dundu lolu loolu mo moo waral yàlla daan am watun ghayru ahya' alal ji nga topp ba mu tere laa jaamu yàlla nga koy jaamu kooku amwaat la xayru ahyaa waaye xoolal yàlla lu mu tëje aaya bi wama maa yashcuruuna ayyaana yubcathuun yàlla subhanahu wa taala nee na xërëm yi ngeen di jaamu bis bu ñu leen di dekkil ñoom duñ ko xam xamuñu ko sax wama maa yashcuruuna ayyaana ayyaana googu dafa yor maanaay mataa ay wama yashuruna mata yubaasuun wama yashuruna ta xërëm yi ngeen di jaamu xamuñu kañ lañ leen di dekkil yow yaa ngi jaamu yàlla joo xamante ne nii booy dekki du ko yëg xanaa loolu ak ndof fa ngay jaamu yàlla joo xamante ne nii booy dekki du ko yëg ngay tuur deret mbaa am soow di ko rendil ay xërëm ay xàmb yoo xamante ne nii ñoom boo doon dee sax boo du du yëg ni yaa ngi dee bu ñu lay dekkil yomal qiyam duñ ko yëg ha kon il faut ñu bàyyi xel kon mbokk yi bu ngeen xoolee waa màkk xërëm yi ñu doon jaamu yàlla subhanahu wa taala indil na ci ñetti melo melol ko ñetti melo yépp nekk melo yoo xamante ni daf koo tuutal bi ci njëkk li mu wax moom mooy lan laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun xërëm bi ngay jaamu bindu dara dañ ko bind du dégg du gis ba ce ñaareel ba Amwatun xayru ahya dañu de te duñu dundu ñettel ba wa yash'uruna ayyana yub'athun motax bi yalla daqé lol nak mu dal di na ngeen xamni yeen doomu adamay yeen jullit ñi na ngeen xamni ilahukum ilahu wahid ilahukum ilaahukum seen jamu te mu nek yalla ji yeyo jaamu mu nek yalla gi nga xamanteni ni jaamu ko moy sa ndari ñek jaamu ko daf lay indi lorange xam ngeen kan la la du ñaar du ñett du ñeent ilahukum ilahum waxid falladina laa yuminuuna bil axirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbiruun yàlla subhaanahu wa nee na gaa yi nga xamante ni nii gëmuñu bis pénc état yi nga xamante ne nii ñu ngi sàcc ay suuf du yokk dund gi nit ñi nekk ci ak métit xalaatuñ yowmal qiyaama faalew ñu ni bis dina ñëw ñu dekkal leen fa alladina laa yuminuuna bil axirati yàlla subhaanahu wa taala nee na qulubuhum munkira ñoom dañoo weddi dañoo weddi li nga xamante ni nii mooy liñ leen wax ni dina leen dekkil benn qulubuhum munkiratun ñaareel ba wahum mustakbiruun ñoom dañoo rëy doomu aadama yu baree baree baree bari ñaari mbir yi ñoo leen sonal weddi gu bari ak gu reuy te ñaar yoyu ku mu nek ci yow da ngay torox da ngay torox ci aduna da ngay torox al-akhirah yalla subhanahu wa taala nak mom la wax ilahukum ilahu waxid falladina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun mbokki dañu dañoo ñooñu dañoo rëy te gis nga yonente bi saa wasallam wax innal mutakabbirina inna almutakabbirina dharri yawmal alqiyamati fa yatauhumu nnaasu bi aqdaamihim fa yatauhumu nnaasu bi aqdaamihim lan moo ko waral li kibarihim yonent bi saa salaam na bu yowmal qiyaamee rëyoon fii ci àdduna yàlla da leen di def ñoom ñëpp dañuy daanu bu dekkalee jaam jaam yi seen kaw la dox ñoom ñi nga xam ne dañoo rëy képp ku rëy fii ci àdduna na xam ne bu yowmal qiyaamee yàlla subhaanahu wa taala ci kattanam dalay daaneel nit ñi bu ñu ñëwee bu ñu leen di dekkil seen kaw la ñuy dox loolu yent bi saa sara wax na ko ci xadis bu xam-xam dañuy wax ni bàkkaar yëpp doomu aadama mën na koo nëbb illal kibr ba mu des rëy rëy doomu aadama mënu koo nëbb feebar la boo xamante ne doomu aadama mënu koo nëbb looloo waral gis nga keroog iblis bokk na ci li tax su jooytalul maam aadama rëy moo tax nëbbu ko keroog moo tax ne bañ ni du su jooytal nga xamante ne ni moom moo de maam aadama kon yow mi may déglu bàyyi xel bu baax dindil sa xol ak ndax te baaxul te yàlla subhanahu wa taala neena gaay yi gëmul yowmal qiyam bokku na ci li len ko yobbe ba gëmuñu yowmal qiyaam mooy dañoo rëy walladina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun la jarama anna allaha yaalamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin allahu akbar yàlla subhanahu wa taala neena la jarama anna allaha yaalamu maa yusirruuna na maa yulinuun mbokk yi xalil ibnu ahmad alfarahidi dafay wax ni laa jarama kalimatu taxqiq baat la boo xamante ne nii toujours day ñëw ngir dëggal wax moo tax moom toujours moo tax mu ne laa yakunu illaa jawaaban moom toujours ci tontu lay nekk yuqaalu haulaai faalu kada fa yuqaalu laa jarama annahum sa yandamuun baatub laa jarama baat la boo xamante ne ni arab daf koy utiliser mooy mbir am na ah maadaama loolu am na kon insha allah rabbi sàngam dina leen dal waaw laa jarama anna allaha yaalamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun amul benn sikki sàkka amul benn déngi-déngi ni yàlla subhanahu wa taala xam na lépp looy ràbb lépp looy nos yàlla subhanahu wa taala xam na ko guddi bëccëg suba ngoon moo xam nit ñi xam nañ ko moo xam nit ñi xamuñu ko ak lu ci mënti am lépp looy def yàlla subhanahu wa taala xam na ko لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين yàlla subhanahu wa taala nee na bokk na ci ñi ma gën a bañ ci nit ñi ñi rëy mbokk yi rëy baaxul yàlla nee na ku rëy dama koy bañ yàlla nee na bëgguma ñi rëy innahu laa yuhibbul mustakbirin nga am loo gëmoon ndax lan papa moo ko gëmoon wala maam moo ko gëmoon jamono dox ba nga xam ni loola papa gëmoon wala loola maam gëmoon baaxul woon mais nga rëy ni doo ko bàyyi buñ la waxee nga ni ñoom maam wala ñoom pàppa te loolee ñu lay wax loolu dafa wuute ak njàngalam alquran wala dafa wuute ak njàngalam yonent bi saa salaam yàlla nee na nga xam ne bañ naa la jéppi naa la innahu la yuhibbul mustakbirin kon tegat leen foofu seen baaram insha allah tabaraka wa taala ñu doxante di daje ba ajjuma jii di ñëw insha allah ñu daal di nekkaat ak yéen ci aaya yi duggaat ak yéen ci faneen foo xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala nettaliwaat nañu ko ci alquran doog a duggaat nag ci xéewal yi nga xamante ni defal nañu ko yàlla nañu yàlla defal dégg topp lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal ni ñuy àndaloon ci liggéey bi la maison du Coran ak képp ku fi nekk di fi liggéey nekk ci xarale gi ñu ngi koy jaajëfal ak ñi ñuy topp ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant wa jazakumullahu xayran wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu góorgóorlu leen ci alquran def leen ko lekk def ko naan ma nga bawoo ca asamaan jibril mu wóor mi andi na leen jaral sonn bu wér na